bismillah barke borom Tuubaa kon ñu ngi siyaare mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yi fi teew yëpp di rafetlu kàddu yi nga xam ni yëpp dégg nañ ko fi muy ay soññe yoo xam ne kenn ku ci ne euh, bokk na ci li nga xam ne ni di nga ko yóbbaale mu war ñoo jëriñ ba ñu fi dajawaat di ñaan yàlla suñu borom la mu nangul ñu suñu jéego yi ñu fi def ak jataay bi lépp loo xamante ni amuluñ yéene ngir ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ñu fi dajalee lépp ñu matale ko di wax ni daara isbu dara daara xuddoos ah, li yenem ay pas-pasam moy sakku ngeureumal seigne touba sakku ngeureumal seigne touba nak japp nañ ni dara mënuñu ko may luddul li seigne touba limu diglé ak fa nga xamné ni fa la tégon tankam àndoon nok mag ñu bax ñi nga xamné ni mom lañ fi doon tuddu légui la leen mayon lañ am ci seigne touba japp nañ lool rek mo fi may dara ba tax na daara isbu tarikh daara khudus yenem moy roy ñoño ca sen doxalin ak seen fañ tegoon seen tànk ba lañu amoon ci sëñ Tuubaa muy ngërëm ñu am ko waaw daara ji nag ku ne xam na ni ci jamono sëñ Saaliw yàlla yàlla sunu borom dolli ay leeram la ñu jël ñu ànd fas yéene moom liggéey ñëw ci moom wax suñu yéene ak suñu pas-pas ci ànd liggéey noo xamante ni day gën a dëppoog ni sëñ Tuubaa bëggee mbooloo doxe ni mu am ñu ñu tegee ñu wax ko it leel mooy suñu yéene ci nuñ fas yéenee doxe te loolu mooy gannaaw mboola la mu kenn ku ci ne xëñ na am na ku sa sëriñ am na foo bàyyi ko waaye liñ bëgg lenn rek la muy ngërëmal sëñ Tuubaa am na noo xam ne nii noonu lañ bëgg a tënkee mboola mi mu noonu mooy fas yéene ba li wàllu hiérarchie am kuréel goo xam ne nii mooy ñeent fukki nit ñoo xam ne nii ñoom ñooy bopp mbooloo mi lépp loo xam te ne daara ji dina ko tënk wala di ko doxe wala di ko wax fukki ñeent fukki yooyu ñoo koy waxtaane ñeent fukki yooyu ñu jël ci ñoo xam ne nii daara ju ne moo xam Tuubaa la wala Kaolack wala Diourbel wala Ngaay fu mu fi mën a doon fu fi daara ji am daara rek dana am koo xam ne nii day bàyyi ko ci kuréel boobu bokk ca assemblée boobu. ak ñoo xam ne nii ci biir daara yi la bokk bañ mat ñeent fukk ñooñu ñooy ñi nga xam ne nii ñaari weer yu ne danañ daje ci jenn daara moo xam ju mel ni tey jii wala ñu war ko ni ko jàppee le 21 euh, le cinq mais war ko daje ca caajaay ngir tënk li nga xam ne nii moom la daara ji di war a doxee ci li nga xam ne mooy objectif fu daara ji daje ñu am ci ñun ci jiital muy ñett ño xam ñom lañu def jëwriñ yi ñuy bop mbooloo mi nga xam lu mbolé moomu tënk xëy na ñoom ñooy ñu ko war kon jëwriñ ji ci ñoñu la la bayiko ñu jël ci kenn jiital ko muy sëñ Mbàkke Cuun ak ñaar ño xam ne nii ñoo ci ginaam kon loolu moy ni nga xam non la mbooloo mi tëddee ci wàllu tënk terewul nak daara ju amna am na jëwriñ ja ca ne ju fa nekk moo xam Touba la wala Dakar wala Ngaay wala Kaolack fu fi ne amna amna am amna am na am jëwriñ ñooñu nag ñooy ñi nga xam ne ñooy daje saa su ne di tënk ci mbooloo mi ah ñu am feex joo xam ne ni Sëñ Tuubaa defoon nañu ko ndax ñaar wala ñetti at ci ginnaaw ñu demoon di siyaare Sëñ Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne moo fa toogaloon Sëñ Tuubaa di ko siyaare ni nga xam ne noonu la ko baara daara ji baaxoo di def at mu ne dajale suñu addiye dem ki fi toogal Sëñ Tuubaa yóbbul ko ko bañ fa demee it mu daal di ñu koy nangul seereel ñu fa nga xam ne mbooloom sëñ Tuubaa lañ seereel ñu ne xam ne ay soldaari sëñ Tuubaa lañ daal di jël sëñ Muntaxaa boole ak ñoom moom boole ñoog sëñ Muntaxaa daan ñu def nañu nañu lu ñuy lu ñuy wax nañ koy wax moom booba ba léegi daara ji lépp loo xamante ni ñu ngi koy def di ko tënk ci li ñuy liggéey lu mu ci mën doon daan ci lu ñu ko tënkee ba noppi daan ci dem ànd ci waxtaan ci ak moom moom it wax dëgg yàlla ñu di ko ñaanal ndax taxawu nañu ndax yegg na ci ba wax ni kenn la ci mbooloo wax ni lépp lu ñuy def nañ ko ko yëgal mu la cay àddiyaam bu dee aw sax sax nañ ko ko wax mu joxe ko ndax at mu am na moo xam at moo xam ne ci wàllu màggal moo moo tàmbali màggal gi kon nag loolee di loo xam ne nii moom ci bokk na ci li nga xam ne mooy doxalinu daara ji di fàttali it li nga xam ne daara ji euh, objectif am li ci jiitu mooy mooy bisu sëñ tubaa bi muy màggal gi ndax sëñ tubaa dafa wax ni lépp lu mu am digganteem ak boromam bis bu moo ko may muy bis bi ñu doon wax fii léegi muy bis bi nga xam ne nii wax na ne ci fi la fi xëye woon bàyyi alalam bàyyi réewam bàyyi njabootam bàyyi léppam liggéey yàlla rek tax koo jóg mu dem ba yàlla sunu borom defaral ko ci loo xam ne ni wax na ni cantuk boppam mënatu koo matali ba mu wax ni digal na képp koo xam ne ni sa mbég sa mbég la saa bu la bis bi fekk te ci kaw suuf lépp loo mën na ko ci def wax ni lu ñu am àdduna ak àllaaxira yépp bis bi moo ñu ko may wax ni fi fi ñaar dend kii da ko fonk kii da ko bañ a fonk ka koy fonk du ñàkk di gis mukk la muy tiimee ka ko fonk ba faw kon nag loolu ndigal sëñ Tuubaa la loxo moo ñu ko joxoñ wax ñu it nan la ñuy màggale mooy def ko ci jaamu yàlla ak bernde jaamu yàlla gi mooy jàng alxuraan mooy jàng xasida jàng xasida it ñu waxoon ko sëñ Saaliw ca loolu ne ko dañ koo def wirdi ci daara ji bépp daara boo ne ni ji am na ko bis bu ne danañ fa jàng xasida bis bu ne danañ fa jàng xasida def ay kuréel xasida yoo xam ne ni dañuy tàggatu te di xencu njàngum mag ña nga xam ne ni ñoo ñoo jota jamono tewoon ak sëñ Tuubaa fu fi daara ji ne njàng moom la ñuy xencu màggal gi wàllu jaamu yàlla gi mu wax ñu ne diggante ginaar ba fi gëléem fu fi kattan waay toll na ko jëf kon loolu sëñ Tuubaa ko digle ba tax na saa bis bi yegsee fu fi daara am danañ la wax ni la liggéey sëñ Tuubaa bi jëm ci màggal gi nangam lañ la ci féetale su ko defee nag nañuy wàllu addee ji moom ñu fi sas kenn ne ko nangam mënoo koo ñàkk joxe ndax kenn ku ci ne pas-pas ak yitte moo la boole ci mbooloo mi la nga xam ne nag moo la ci àgg moo lay àggale moo moo lay may li ngay li nga li la ci wut li ngay wut yaa ko yaa ko xamal sa bopp buñ nee nangam la ñuy def kenn ku ne dana xam la nga ca man ak fa la sa pas-pas toll nga jëfe loolu su ko defee ñu dajale suñuy addee suñu borom ma ngi ciy defal sutura mosu ñoom def màggal wala ziar wala lenn loo xam ne nii euh, des na gannaaw kon saa su ne ndam rek lañ ciy am te loolu la ñuy ñaan suñu borom it mu gën koo saxal gën koo yaatal ba pas-pas bi nga xam ne nii waa Louga am nañ ko ba gis loola ba tàbbi ci yàlla suñu borom yaatal ko ba képp koo xam ne nekk na Louga wala mu bëgg gis lii ñu xam ne kon Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos Louga taxaw na ñii ñoo fi nekkal mbooloo mi lépp loo xam te ni am nga yéene tàbbi ko ci biir daara soo ko jaaree fii ñu ànd kook ñun ndax ànd liggéey sëñ Tuubaa rek moom moo ñu moom boole xanaa doon tàmbale rek jox sëñ Moustapha wala sëñ li nga xam ni sëñ daan nii la daanelee rek ñu fas yéene sofe foofu moo di daara ji moom mbooloo mu dajale ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek liggéey bi tam ñu fas yéene ko teg ci ndigal ak defe ko li nga xam ne noonu la ko Sëriñ Tuubaa bëggee te noonu ñu ko waxee sëñ bi leeral na lépp bi jëf jëf na ñi àndoon ak moom gis mu bind bàyyi fi leeral ñu yoon wi lépp leer naññi te lépp tënku ci ak taali bi rek dara te ak taali bi mooy lislaam rek dara bañ cee génn lislaam kon ci biir loolu itam daara ji loo xam ne daara dañ ànd gi ñu ànd itam dañoo ànd ngir dimbalante te yàlla tax loolee li ci firnde bëri na ci gone yi ñoo xam ne fii mën naa wax ne ci daara ji lañ nekkoon ñu leen di taxaw mag ñi di leen taxaw ba fan ba jamono yi mën naa wax ne ña nga bitim réew yor fa ay poste yu mag di liggéey yor am am teranga di jàppale seen i wayjur te fonk it seen i sëriñ ndax mbir mu ne na muy da cee baax leeral ko daara ji yaakaar naa ni naka jek bañ doxé ba légui ni ko sëñ daam waxé ba ci sas yi lepp loolu lépp dañ ko leeraloon sëñ bi señ salim mu rafetlu ko nga xani amul kenn kuñ ci sas wala di ci tek lo xani ne ko mu lay andi ay gàllankoor wala ay jafé jafé ñun dal ay talibé yi ñoo xam ni dañoo ànd di liggéey sëñ Tuubaa bëgg señ Tuubaa nak moy moy moy li nga xani mën na wax ne gënal lepp moy buñ sañon ndaw ñepp bëgg señ señ ndax señ rek rawukaay bi ndax jamono ji yàqu na yàqu koo xam kenn mënu ko misal sëñ bi rek mooy rawukaay mooy muccukaay boo gisee nii kii doon wax léegi daanu fi ñaari yoon sëñ Seexuna Sylla mi ay ñu ay yu baree bari ay Seexuna Sylla yu baree bari moo am ci daara ji ñi nekk ak man daaray Touba xam nañ li may wax baax nga xam ne kon Mbàkke ñoo lay ñaan sëñ Mahamadan mii fi nekk teew ci jotaay bii di sëñ Touba daa mel ne suñu xel war naa dal su rafet suñu njort war naa rafet dañoo nekk di liggéey sëñ Touba di waxtaan sëñ Touba sëñ ne deret dugg suñu biir mooy sëñ Mahamadan mii toog sëñ Cheikh Baara Matilay damaa mos a wax ne ma yàgg na ne ma maxtaar sëñ tubaa dara ma taxeeb boobu xaw ma sax lu ma wax ndeke damaa bëgg a dimbali rek ndax ñu xam njabootu sëñ tubaa ñooy ñan kon dañ xam ne ñun suñ liggéey bii maanaam njabootu sëñ tubaa gi lañ fi nekkal doon seeni soldaar laxasaayu daara ji sama xel da cee yàgg dal boo wax naa ko tey ji sax ak ñi nga xam ne ñoo àndoon kilifa yi nga xam ne dañ fee nekk ci ci dëkk bi muy sëñ Mahamadan mi ak sëñ Maham ku mel ne sëñ Mahamadan moom moom moom sëñ Mutala bi ñu yàgg nañ fee ñëw yaakaar naa at yi weesu ci ay cant yoo xam ne dañ fi doon woo waaye bi ñu gisee ñu bootu ci ñoom loolu dafa dalal xel loolu rek mooy ndam li sëñ Tuubaa dafa dafa am mat dafa am ay jëwriñ yu mat sëkk yoo xam ni sëñ Tuubaa da leen a fàggu fii ba bis penc yoon yi loolu du ko rafle mukk te loolu sëñ mun Muntaxa am na lu mu ci wax mu sa wax bay Cerno mi fekk na ko wax nañu ko ñaari yoon ni sëñ tubaat day sunu borom da ko defal loo xamante ni ku tedd ki li muy baax loolu sax moom rafet na ko daane loolu mooy lan daane ay ngir ñoo xam ni dañuy mën a téye lislaam téye yoon wi wallahi alazim yoon wi ñii ni ko sëñ Sidi Muxtaar yore doomi sëñ Tuubaa yore woon ko ñii noonu lañ ko mën a téye kenn koo jël ci ñoom mën na koo téye sëñ Tuubaa def na ko ci ñoom ay rëkk gars yi nañ xam li ñu am mooy lan daara ji de man xaw ma kan waaye rafet naa ci njot amul jenn daara joo xam ne dana ko féete kaw barke xaadim rasul amul genn daara joo xam ne daara lu ko ji daara istaraxe dana ko daara xuddos dana ko féete kaw te te te te te te mbir maa ngi suñu kanam nañ dox di xool mandarga yi rek cee bari dafa feeñ da ngeen dañoo ñëw fekk leen sëñ Tuubaa ni ci seen biir mooy sëñ Mahamadan mi nga xam ne moo leen jiite yéen ñëpp ma ne tey laa ko gis waaye sama xol sama xol daa sedd lool barki sëñ Tuubaa te maa ngi koy seral sama xol da cee sedd lool ñoom ñoom ñooy sëñ Tuubaa ñoom ñooy sëñ Tuubaa te sëñ tubaa dafa matale te kenn du ñoom nag ma wax leen loolu te leen rek mooy suñu ndam nañ ko nañ ko waxante buñ géegee daara ji ba léegi dara leen rek moo ñu mës a yokk mooy fonk njabootu Sëñ Tuubaa fu ñu woo ñu dem fexe sàkk seen mbégte loolu rek moo ñuy moo ñu yëkkati moo ñu moo ñuy jëme kaw te feeg ñu ngi ni ngi teg foofu suñu tànk dara du ñuy rafetu ko am dañuy jëm kanam rek daara ji day gën a yokk ni ko sëñ saay doon waxee ndax ña ngay yokk daana ko wax kon feek ñi fonk njabatu sëñ bi rek suñu xel di gën a nan nan gën a dara suñu xel te xam ni ca kaw ci kanam rek lañ jëm duñ dellu ginnaaw mukk kon Mbacke ñu ngi lay sant bu baax sunu yaakaar gën naa gën naa dëgër suñu xel gën naa dal na la wóor ne sëñ Tuubaa lañ lay xoolee biñ dikkee fekk gars yi boote ci yow ñun ñëpp ànd nañ boote ci yow te xam ne nii bët bi ñuy xoolee sëñ Sidi Muxtaar bët boobu lañ lay xoolee bët boobu lañ war a xoolee njabootu sëñ Tuubaa gépp loolu kese mooy sunu dam na xam ne suñu mission ñun xaw ma istarxe daara xuduus mooy taxaw njabootu sëñ Tuubaa gi ndax ñooy yoon wi ñoom la fi sëñ Tuubaa bàyyi ñu mat sëkk liñ doon jamono dafa yàqu yàqkat yi bari ñiy jaxase xel dafa bari waaye ñun nañ xam li ñu am yoon wi sëñ Tuubaa da koo téyel boppam dafa andi ay jëwriñ ñu mat jëwriñ ñu mat liñ doon sëkk kenn ku bokk ci ñoom lu bokk sëñ Tuubaa yemut ak lenn sëñ Ablaye Mbuub mii loolu tax ma naw ko daa bëgg sëñ Tuubaa gëm gëm gu wér daa sëñ Tuubaa léegi bi ñu génne bi ñoo bokk fi ñu toll dama ko juñ rek moo xam ma ne ko yow da ngaa dégg daaj da ngay waxtaan ci sëñ Tuubaa ba sa dënn tàng jën nga dikk ci moom boo waxee moom bu la xoolee day xulli bët yi nee na sëñ Tuubaa bokku ci ajaat baar bi ca kaw foofu lañu ñu war a nekk sëñ bi rek nañu gënal lépp dañ tàmbalee ci sëñ bi yem ci sëñ bi ay njàngaleem dafa mat sëkk aw doxinam daf ñoo doy sëkk amul leneen luñ ci dolli tàmbalee ci sëñ bi yem ci moom doon ay murit yu dof fii ak demoo ba ne da ngaa rek des na dofal ci sëñ bi rek dinaa ko wax gone yi waa na leen mën leen a bas jenn mi ci xasida yi sëñ Tuubaa rek yemuli ko dara foo ko fekk mi ngi jàngi xasida buy dox mi ngi jàng xasida buy nelaw mi ngi jàng xasida buy buy buy waaxo mi ngi jàng xasida xasida yi lay waxtaanee du ci doyal bu ñee daara ji répété mu ne du taxaw day liggéey day continuer ne roy leen ci moom ndax yàq koy dafa bari sëñ Tuubaa li ñu andi dafa ñoo doy te loolu dafa ja ca jotaay yi lañ ko mën a waxtaanee sëñ Tuubaa doy nañu sëkk ñun wasalaamualeykum isbu tarxiya daaru xudóos tàggalewul kenn ak way juram na leer isbu tarixee daaru xudóos tàggalul kenn ak sëriñam isbu tarixee daaru xudóos tegul kenn lu mënul lebloo kenn ñaanloo kenn lu dul li nga xamante ne nii moom lañu sëriñ tubaa wax ne nañ ca tege ñu tege ca jàng alxuraan ak jàng xasida yi nekkuñu ci leneen lu dul loolu ku leen ku ngeen dégg mu nekk ca leneen moom caat ñun ci lii la ñu ne te itam ci lañ ñu teg ci la ñuy nekk ci la ñu fas yéene faatu leneen lu ngeen dégg nag bokkut lii na leer leneen lu ngeen dégg boo ko bokkut ak Hizbu Tarqiya Daaru Xuddoos Daaru Xuddoos fii lañ tege lii lañ sëñ Saaliw wax ci la ñu ne teguñu kenn loo mënut tàggaluñu kenn ak bokkam tàggaluñu kenn ak sëriñam dañuy naggar kenn ku ci nekk la nga la nga nàmp ci sëñ tubaa di ko nàmpal sa morom di jàng xaside yi di ko dund ci pas-pas bi nga xamante ni moom la mag ñi daan nekk danti nekk ci ci ci keppaaru sëñ Tuubaa tey jii li fi jib ku ne xam ne ne sëñ kese la sëñ mi suñu biir ku mën a waat ni sëñ Tuubaa mi ngi fii ndax mi ngi nii toog seere lii ñuy def kon ñun amuñu jaaxle ci dara kenn ku ci nekk na xam fi nga war a teg sa tànk xam ne gone dafa war a wet mag ñang jàng nañ bokk nañ boole jàng li gën a am solo ci daara ji mooy nañ fi euh, euh, sa julli wax ci juróom yi ne fi sax jàng téere sëriñ bi na fi sax sax ci diine na fi sax loolu rek bu ñu ci yemoon doy na leneen la ci des kenn ku ne am nga foo ko defee te yaa nga ca bu ñu waree daje ci màggal dana danañ woote ne nangam la ñu def ci màggal bu ñu waree siyaare ji danañ ko def danañ woote ne nangam la ñu war a siyaare teguñu keneen leneen gawuñu kenn kenn ku ci nekk dafa am foo war a taxaw ci pas-pas ak yitte Serigne Touba lim la jaral infaq sëñ taxaw wax nañu ko bu ñu xasee ba def loolu nag infaq amul fen amul amul fu mu yem kenn ku ci nekk li la Serigne jaral yaa koy yaa yaa koy ŋacc ci sa biir di ko def ci yoonu Serigne Touba loolu kon amul fu mu yem waaye fii lañ taxaw loolu daal laa ci bëggoon a dolli di jégalu baax. li ñuy def loolu rek lañ war a def ndax suñ borom dafa wax ni ma xalaqtul jinn wal ins illa li yaabuduni suñ borom dafa ñu bind lu dul rek ngir ñu jaamu ko nit ak jinn yi loolu rek moo tax suñ borom bind ñu. kon leneen luñ def lu dul jaamu suñ borom ñu ngi ci erreur rawatina nag sëñ tubaa mii nga xamante moom lañ topp yaakaar ko. mu incarné lépp loo xamante lu mboolem luy lu baax wasaayil yëpp luy lu baax dafa daje ci moom kon ku suñ borom taw féexee la nga nekk ci moom ku war a xam bu baax fi ngay teg sa tànk Matar wax na am aspect bu am solo ndax jamono ji fii mu toll ci wàllu yàqute man ñaari tout le temps dama bëgg ñuy waxtaan ci loolu ñu xam ni waruñu rey ab fokat ab musicien ab footballkat yooyu amul solo waruñu roy ab mbërum làmb ki ñu war a roy mooy Sëñ Tuubaa te loolu it dañ ko war a wax suñ tout tànk yi nga xamante ni dañ ñoo meññ ndax télévision yi ñu ngi ci suñ biir kër yi duñu fekk ba ci biir kër yi li ngay bañ ci sa bopp ñu di ko def ci say doom te doo ko yëg kon tubaab yi ñoom ñu xar ñu sori leen ci côté boobu war nañoo gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ci wet googu yar ci tutànk yi xam ne lii rek mooy li nga xam mooy am solo tey mooy am solo ëllëg sëñ Abdou wax na ko xu anfusakum wa ahlikum naaral na suñ borom wax ci alxuraan na ngeen fegal seen bopp sawara ak seen ñooñ te fexe ba mucc bàyyi say waa kër loolu dara jaru ko kon nañu gën a góorgóorluwaat gën a laxsaaywaat xam ni dara desu fi lu dul liggéeyal sëñ Touba liggéey sëñ Touba rek moo fi ne. lu ma def lu dul liggéey sëñ Touba rek dama euh, euh, juum naa lu ma bëgg sëñ Touba def ko ñun ñi tam noonu lañ mel luñ bëgg sëñ Touba fekk suñu ji kon bañ jógee ba léegi moo ñu teete nekk ci suñ kanam ak suñ ginnaaw sëñ Saliou it waxoon nañu ko wallahi alazim waxoon nañu ko. ñii la ko waxee woon mu ni lii ma leen di lijjanteel bu ngeen ma wóoloo danaa ko lijjanti te muy gën ci yéen gënal leen. te di ngeen ci daje ak tawféexi sëñ Tuubaa maa ngi jégalu wallaay lancim tawféex nag fekk nañu ci ndax li tax tawféex fekk nañu ci jenn jëm ñun ñenn dañoo kuréel bu néew la woon di jàng ñaari guddi màggal yi buñ jàngee ba mu àgg dix dix dix sept safar dix huit dix neuf safar mu woo ñu ñu fanaanee waat jàng ba bët set mu ni njàng mi ne dafa yéemu lool fu ma déggee njàng mu neex rek seen xel dem ci yoon ci ci ci yéen. loolu moo ñu daf ci njàng bi ba sëñ Cheikh mu sëriñ Saaliwu ni ku ne xam ne ma ci ña ci xasida yi lu ne bu ma ko sëncarooy sax ci sama waajur tedd yooyu sama waajuru jigéen ñi ñi ko meññ gàmmu ak lu baax lu dañ eh, ci lañ ñàkkoon waaye xam naa ne yéen li ngeen am ci njàng mi xusuus yi la maanaam lu leen suñ borom jagleel la ñun sax xamuñu lu mu doon loolu nag du dara lu muy bëgg sëñ Tuubaa rek lii moo war li war a dox ci àdduna bi leneen waru fee am lu dul bëgg sëñ Tuubaa te di ko liggéeyal moom rek moo fi ne te keneen ku jël lu dul wallaahi lazim da ngay perte barki sëñ Touba sama sëriñ dafa maa nettali muy sëñ Ablaye Diané sëñ Baara Diané doomu la ci sëñ laay Diané nga xam ni mag ñi fi ñu àggoon dañoo fanaanee gàmmu di gàmmu ba ca fajar benn waaye daanoo fa boobu murin ñi ngi ñi ngi dox dëgg jël loxo mi dugal ko ci gël bi tibb ci xal yi ñoo fekk sëñ Ablaye Diané fi mu toog mu jox ko ko mu def nii toog sëñ bi gën koo tàng foofu wallahi alazim ba xajar fajar di xotti bu jóg jeexatulul sax ba fajar di xotti wallahi alazim jeexatulul ci yére bi barki sëñ bàyyiwulu jeexal ndax ki tibb ci loxoom nga ñëw jox ko mu def ko ci yéram toogaaleeg moom bi mu jóg xal yi noonu la wadde bàyyiwul dal ci yére yi moo tax dañu war a bëgg sëñ Tuubaa te yaakaar ko lii ñuy wax ci sëñ Tuubaa rek la nekk l'islam yéeg-yéeg la du loo xam ne ngay nekk fii di théorie gars yi di indi di leeral non non lii mooy l'islam wallahi lazim nga di ko wax muy neex ci yow di daw ci sa deret nga bëgg sëñ Tuubaa te doo ko boole dara gars yi jël yu ñu daan mais sëñ Tuubaa la lii moom rek moo war a am ci àdduna bi dafa war a yaatu nag ñu yaatal ko ku baax waxoon na ma mbirum suñ borom du tas ba àdduna tukki waaye dina tasaaroo nag fu ne dara dana fa ne nañ yi sëñ tuwaat ñeneen te lii moo war a sauver àdduna bi parce que sëñ Touba il est le sauveur celui qui a sauvé le tout ba àdduna yëpp si sëñ moo ko wax wallahi alazim daf ko wax dafa wax ni ci ci ci ci ci ci xaside gu ñuy wax euh, ñu ngi koy jàng li rabbin xafurin waa allim niya ilman la wax la dunniya bari an mutiyan taqiyan muflihan waaye nag yursidu Cheikh Ba la ko def moom mooy sauver peuple bi parce que Sëñ Tuubaa noonu la demee adduna bi yëpp noonu la noonu Sëñ Tuubaa koy sauver bi mu ko defee muy xam-xam boo xam ne xam mun la duniya nit ñu ngi koy tëggoo ci lawhul mahfuus mu def ko kuy topp suñ borom muflihan muy ku texee waaye nag yursidu Cheikh Ba loolu la ko loolu la ko suñ borom def kon kooku bu ñuy wax jëm ci moom dañoo war a sant te gën a góorgóorluwaat laxasaay maa ngi jégalu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 suñu mbokk taalibe yi fi ñëw ñëw ci Louga ñu ngi leen di dara jàmm di leen nuyu di leen ziar tey bég ci ñëw bi ñu ngi ciy bég lool di ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa jéego yi ngeen fi yi ngeen dox ba ñëw fi yàlla nay nekk ay ndëggu ci àjjana te ya suñu borom defal leen ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa lii rëy na ci ñun lool ni ma ko waxee sànq rek ñoom sëñ Moussa bi li sëriñ bi wax boo demee ba jamono lëndëm gisatoo sëriñ bu mat sëriñ na nga wut àndandoo yu mat àndandoo sëriñ bi day wax dañ naan xoqal bu kaaw sëñ bi da ko bind te liñ naan tawariya tawariya mooy ngay sëñ bi da ciy mel melal da ciy wax saaba yi fekk na ay ñooñu boppam la ci jublu لمن ورفخة وهي إخوان لهم عمم مع الوفاة بصدق في الأقوات نبكي كي بوي اند داي اند اك ني ماتا اندال دي سيرين بي واخ آه، اذا كنت في خوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى معرض ولا كي سوسيتي ولا نكتي nek wala nga nekk ci kuréel wala loo mën a ne seetal ñay tànneef ya ngay ànd ak ñoom waaye bul seet ña ci gën a doye ji ngay ànd ak ñoom suñu sa am naa faral di eh, yal na yàlla doon leer naa faral di muy muy wax ci ci waxtaan yu am solo yooyu bay misaal ab tubaab bu ñu naan Molière bu naan quand une quand une personne on prétend se régler c'est par les beaux côtés qu'il lui ressembler hmm. nit ki booy koy roy da ngay seet la gën a am solo ci moom nga roy ko ci loolu ci lii rek am solo boo gisee nit ñi sànq buñ tuddee sëñ Tuubaa seen xol yi fees ñuy daanu loolu moo sos yoonu murit sëñ Moussa doon na misaal di nettali mag ñu baax ña nañ meloon taalibe yu njëkk ya nañ meloon naan di daanoo ko jóg bul naa ko fii daanu yeggagoo ku yeggul ca kaw doo daanu bay jóg di wootaate mm. kon loolu lu am solo la xanaa di gën a soññ suñu bopp di soññ mbokki taalibe bi gannaaw bañ ci jiitee suñu bopp sànq ñu njëkk a wax ñépp wax nañ ko fi xam ni yoonu murit li ko sos mooy liggéey jaamu yàlla man sart bi ma bi may wax bi ma tëral ñoom sëñ Moussa biñ neemaa dañoo bëgg nga gunge ñu ci ci suñ daayira bi dama neen man yàlla damaa bindee sama nature mooy du ma nit ku bëggaay mbooloo yi te li may ànd ak yéen mooy dëggu ak ndigal ak tënku ci ngërëmal sëñ Tuubaa ak yitte sëñ Mbay Jaxate daan yittee di koo murit mbooleem murit bu ko am sangam gërëm ko la muy wut lépp jàpp jàppandi kon yitte mooy pas-pasuñ bu murit man ko man ay mbooloo gi man ñoruma ndax sëñ Tuubaa li muy def du ko def ci ay mbooloo yi sëñ mu saaka day wax wax ju am solo danaan bari soxna ak naari góor ak alal di am taaxi kaw say murit naa nërëm taxul bàmba jox la siroom ka jégal dëggal ak ndigal ak ngërëm ñooy njëgam jógal farluwaatal te yeesal sa jëf te bul mel na ñi wax ne jëf wëy na cam xanaa jëf ya daa am du yàllaa taxoon xanaa pay ya daa ñëw du yàllaa ko am te yàllaa ngi jëf yaa ngi pay yaa ngi nii sëriñ benn mes waaye mbóot yaa ngi am te sax jëmm joo gis dafay xëy ne mes waxam jaag jëfam jaafa des dim ngërëm